je pense que 2012 bu président la transition bi xaw ma nga am mais tay dem lu xew dem diggante Diomaye Sonko ak Macky Sall biir palais musul am ci réew mi parce que conseil constitutionnel waxagul résultat définitif ba Diomaye Diomaye est un président élu mais il n'a pas pris fonction il doit prendre fonction le 2 avril donc waragul tim ci dossier sénégalais amul droit tim ci ben dossier Sénégal xaw ma ndax yéen a ngi koy sënk parce que dama bëgg buur dama bëgg yéen aussi journalistes yi ngeen di xalaat lan la Macky Sall di yàqamti bay bay won jomaay démb dossier yi ba di waxtaan ak moom te te jomaay dafa war a waati ba pare jël prêter serment ne je jure ba pare bu waatee ba pare door a jóge waat ba dem pale ba def ak Macky prestation de serment mooy lan démb boo gisee seen photo yi nga xam ne leeral dil bi mooy eux trois ils sont beneen mooy Macky Sall dafa lu mu soxla mooy fondation bi mooy lan image la soxla woon mooy image am moom